ci leetar bu ñu ne bind nañ ko bind ñu ko hmm. te leetar bi ki mu concerné muy Serigne Bassirou Mbacke mu Serigne Abdou Khadir yàlla na fi yàgg te wér Serigne Bassirou wax na ne leetar bi ñu bind président man Serigne Bassirou maa ko signé hmm. jox ko président président ba nga ko joxee nee ba li nga bëgg lépp dañu ko def hmm. kon leetar ba jaara sa ginnaaw génnaat ci turu Touba ba moom mu tontoo sa noonu loolu ndax jàppoo loo jàpp ne moo ko war a waral kon yow dégg li ma la wax léegi ci waaye dégg naa ne wax. mais déggoo ko. waaye xam nga waañ nga expliqué si waaye am na ñoo xam ne dégguñu tontu waañ bi. waaye dama ne màggal Tuubaa ay commission la. waaw. Ah. yow. commission euh, relation extérieure. Hmm. su fekkee yow dañ la koo fal. da ngay fexe ba lu tax ñu la koy fal. buñ hmm. la ko fal da nga bëgg nga doxal ko. voilà. rawatina nag loo xam lu bees. dox na dox na presque. dix ans wala lu ko ëpp hmm. ah hmm. fa nga daa jaar di ko doxal bu màggal jotee doo fa jaar pour doxal lool hmm, la fa nga jaar pour doxal ko ku ci ne dafa am lieu boo téye waaw président lañu wax tey jii président Diomaye Faye ñëw Touba ñëw na fi Pape Alé Niang kan moo ko fal directeur RTS président moo ko fal ñëw fi engagement yi mu jël ci tur kan la ko jël que président la ko jox man ko léegi bu dee defee engagement président day génni man engagement yooyu du man tam fal ko ko moo fal ah ya uli albab jërëjëf nañ waxante man wala ya ko fal ya ko fal président nangam du ko doxal président ya. nga de ya ko fal pour mo nek la fi barap yow kay buñu ñu wax la ya wara a ba xam ndax dafa am benn nangam bu def nangam ak nangam ak nangam mhm. d'accord ah su ko defé bu kenn ne man ah ok nga ah ko kat mooy président nangam. Mhm. waaye doo tëb tëb rek daal di wax ni. waaw ah. nangam ak. waaw ndax let ndax lettre bi ñi ko signé. waaw dañoo wutante. waaw dañoo wutante. dañoo wutante d'accord. benn président fi am waaye ñaata ministre fi am. ndax Sëñ Muntaxa bi bind lettre président bi bind lettre. waaw signé na ko boppam. Sëñ Muntaxa mu jël jëmmam joxe. waaw ah. kam joxe jëmmam jël jëmmam joxe. joxe Sëñ Muntaxa jënd jëmmam la joxe. yow nga jël sa jëmm partagé ko fukki yoon. waaw kon bu loxo bi metti loxo bi ngay faje waaye doo ne tànk bukk ci jëmm ji. d'accord ah voilà. kon mel ne màggal na si jàmm lépp weesu na si jàmm. Ah, waaw waaye lu mën a xew rek mooy moom loo xam ne luñ luñ ñëpp seq la. Hmm. du lu du lu du lu kenn moom. Hmm. te yoonu Serigne Touba yi moom li mu waxoon rek yàqule moom da ko fi bàyyi waaye yàqu moom da ko fi jëlee. yàqule da ko fi bàyyi. waaw kon nag képp kuy jóg di attaqué. waaw lenn bokk Serigne Touba. waaw waajal da xam ne sa bés a waaw kon waajal da xam ne sa bés waaye nag. loolu rek mooy mooy mbir mi waaye leneen xam nga ñoom seen mbir moom wala ñun suñ mbir moom du yàgg duñu yàgg yàgg yàgg yàgg ba fekk sa kilifa ndax loolu bokkul ci yoon yi moom fekk sa kilifa mu toog nga koy manqué muy mu toog nga koy manqué respect a gis ko war a jox ab cër joxal ko cër loolu warul mm-hmm. Mm-hmm. moom bokkul ci sart yoon wii mooy li nga wax léegi génn kër nga am fab xar am fab soppe am fab sëriñ waaw waaw mënu tax rek jërëjëf euh,